الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ببركة هذه الآية الكريمة المباركة نسألك أن تذكرنا ما نسينا وتعلمنا ما جهلنا وتثبت في قلوبنا ما ذكرتنا وما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ينبك يتدي waxoon nañ leen ne ci bandu ñetteel bi fas yéene nañoo waxtaane chartu shuruut yi nga xam ne moo aju ci at tariqa tijaniya xanaa kay ñuy fàttali rekk ne sidina cheikh radiallahu taala anhu bi ko maamam feeñoo ba jox ko wirdu woowu nga xam ne moo di al wirdu tijjaani yi ca fa ñu waxoon ne mooy abi abi samxuun fa la jógee nag ñëw faas ci 1213 ci gàddaay gi ànd ak xalifaam bu baax boobu di mawlaana sidi ali xarazim barrada alfaasi radiallahu anhum ajmain ba mu dikkee ba am ñaari weer ca faas fas yéene faa toog nag ba génne fa àdduna diggante boobu war na mat fukki at ak juróom-ñaar ndax 1213 la fa ñëw te mi ngi gaañu 1230 ba mu dikkee itam kam fa fekk di kilifa teral ko lool jox ko cër mu bañoon ko waaye ginnaaw bi mu am ndigal ci maamam sallallahu alayhi wa sallam pour mu nangu ko sidina cheikh nag fa tabarakallahu tariqa bi tariqaam bii di ab tariqa tijaniya dafa am ay charte charte yooyu nag ñaari xeeti charte la daf ci am charte yoo xam ne mi ngi aju ci nit ki nga xam ne dafa bëgg a jël tariqa bi moom la ñuy wooyee shurutu duxuli fi tariqati tijaniya charte yoo xam ne boo ñëwee ci sëriñ bi leeral ko sag bëgg daf la koy gaaral benn par benn soo ko dégloo to nangu ko mu jox la ko ci sa teeyu bakkan soo ko dégloo te nanguwuloo ko loo ko jegeñ-jegeñ du la ko mën a jox mu mel ne kon jaadu na ci ñun ñu leeral charte yi nga xam ne ku bëgg a dugg ci tariqa bi moom lañ lay leeral la ca aju mi ngi aju ci ay la ca des mi ngi aju mi ngi nekk ay charte yoo xam ne dafa aju ci werd yi ngay jàng suruut yooyu bu dajewul wirdi wi soo ko jàngee du baax da nga ko war a baamu kon léegi ñi ngi njëkkee ci charte yi nga xam ne moo aju ci jàpp tariqa bi charte yooyu itam dañu ko séddale ci ñaari xaaj am na ci charte yoo xam ne mi ngi aju ci nit kiy jël te mu nekk ay charte yu war shuruut lazima la تتعلق بالشخص الذي يريد أن يأخذ هذا الورد التجاني شرط يوي نك بيتي نجك مودي كي جل نفس ييني ci xolam ne su xasee ba jël tariqa bi dootu ko bàyyi su xasee ba jël tariqa bi dootu ko bàyyi ndax kóllëre la goo xam ne dafay dox digganteem ak boroomam jaar ci sëriñ bi nga xam ne moo ko ko jox te kóllëre yàlla dafa wax na na ngeen ko matal wa awfu bil ahdi inna al ahda kaana mas'uula na ngeen matal kóllëre kóllëre lu yàllay laaj ëllëg la yàlla waxaat ci alquran ne wala tanqudu al aymaana ba'da tawkiidiha wa qad ja'altum allaha alaykum kafiila bu leen fecc mukk seen kóllëre yi nga xam ne da ngeen koo façon ba mu dëgër rawate na nag su fekkente ne bii yàlla ngeen def mu warlu kóllëre yooyu nga xam ne da ngeen koo fas ak ngiñ yi nga xam ne dafa dox seeni diggante da ngeen ko sàmm ndegam kóllëre goog àdduna sax lañ war a sàmm waxatuma laag kóllëre goo xam ne dafa jëm ci wàllu yàlla kooku mooy charte bu njëkk bi mudaawamatul awraadi wa adamu tarkiha ila al mamaat loolu moo di charte bu njëkk bi charte bu ñaareel bi moo di ne ki nga xam ne dafay jël tariqa bi jamono bi mu koy jël na fekk bu mu yore beneen wird bu bokkul ak al wirdu tijaani yi bu mu ko yoree na fekk mu nekk xaaliyan min al awraad wala boog su fekkoonte ne yoroon na beneen wird bu bokkul ak wird bii muy bëgg a jël na ca génn ba set ca wicc ñu door ko mën a jox al wirdu tijaan yi kooku mooy as charte saani mooy charte ñaareel bi charte bi ci tegu moo di ne soo jëlee al wirdu tijaan yi dootuñu la may nga ziyaara beneen nitu yàlla moo xam kuy dund la wala moo wala boog nitu yàlla bu fi nekkatul te fekk nag nga jublu ca ziyaara ba ziyaara barkeelu ak aju ak tëbb ci moom waaye su fekkente ne bii ziyaara jokk bokk rekk la kooku sidina cheikh du ko tere sidina cheikh daawul bañ sax ay taalibeem di dem ci yeneen kilifay tariqa di fa déglu xam-xam ak di fa jàng di déglu seeni waaraate ngir mën caa jariñu ci wàllu yàlla daana sant itam ay taalubeem ñu xormaal nitu yàlla yi loolu sax bokk na ci charte yi nga xam ne danañu ko leeral ci kanam loolu moo aju ci mbirum ziyaara boobu nga xam ne dana faral di indi coow moo tax ba maam Cheikh Alxaaji Malik radiallahu anhu charte yooyu indi na ko thalathatun min bacdiha al cishruna awaluha ya saaili tabyiina كون الذي يلقن الأذكار مأذون تلقين بها جهارا وأن يكون طالب التلقين خال عن الأوراد باليقين أو تاركا منسلخا وإلا فاترك له طريقه والإلا فالطرق كلها إلى الرحمن موصلة مسلكة يا جاني وليس ذا منا تكبرا على شيوخنا الكرام جل من على لكنه شرط على الطريق أعاذنا الله من الحريق am cheikh alhaj malik ñetti charte yooyu la lim ci bayit yooyu ñu jàng léegi boo xasee ba jël wirdi wi dootuloo ko bàyyi ndax kóllëre la gu dox sa diggante sa borom jaar ci sëriñ bi nga xam ne moo la ko jox te jël tariqa dafa wuutu jaayante ga nga xam ne moo amoon diggante yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak saxaabaam ya fa tabaarakallah إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما بيجي تيغو موي كي كوي جيل na fekk bu mu yore beneen wirt wala boog su fekkente ne yoroon na ko na ca génn ba set ci wicc ñu door ko ko mën a jox moo tax moom Cheikh Alhaj Malik nee na nag loolu defuñu ko ngir takabur def ko ngir rëylu wala boog wane génnug rëy ci yeneen sëriñ si ci des waaye nag charte la bu bokk ci tariqa bi bi ci tegu itam mooy di kenn dootu la may nga ziyaara beneen nitu yàlla bu bokkul ci tariqa bi te fekk nag nga ziyaara ko ziyaara barkeelu ci moom ak aju ci moom ak ñaan yàlla mu fajal la sa aajo ci barke sëriñ boobu dootul mën nekk xanaa lu dul ambiyaa yi ak saxaaba yi ridwanullahi alayhim ajmain loolu ba tey lu mat a bàyyi xel la ah moo tax ci alifaat al ahmadiya boo ca demee da nga fekk sidna cheikh di wax ne sama maam sallallahu alayhi wa sallama am na benn masala bu ma wax boo xam ne bii moo di ne képp koo xam ne kii dafa jël tariqa bi jël ci ab sëriñ ba noppi dem ziyaara keneen ku bokkul ak moom laa yantafiu laa bil awali wala bi thani du mën a jariñu ci ku njëkk ka du mën a jariñu ci ku ñaareel ka charte boobu itam maam cheikh alxaaj malik indil nañ ko ci faakihatu tullaab wax na ko itam ne ko su fekkente ne bii sa àndandoo yi dañu romb sama àndandoo yi fal yazuruhum nañu leen ziyaara wa amma gayruhum min al awliyaai fala ñu bokkul ak ñooñu nag ci nitu yàlla yi buñ leen ziyaara charte bii nag charte bu am solo la ci tariqa bi taalibe bii jël war na koo jëf war na koo jëfandikoo bu baax a baax bàyyi ko xel ndax sidina cheikh radiallahu anhu ku ko bàyyi woon xel la ku ko bàyyi woon xel la ku ko bàyyi woon xel la ba tax na ñun tam war nañ koo bàyyi xel bu baax a baax loolu mooy charte yi nga xam ne ñetti charte yu njëkk yi nga xam ne min alchurut allazimati almutaalliqati bi shaxs mu mel ne am na yeneeni churut yoo xam ne churut kamaliya lañ koy tudde ci kaw nii waaye ci biir boo ko seetloo itam churut la yoo xam ne mënul ñàkk charte yooyu bari na fa tabarakallahu danañu ko lim benn par benn ba nit ki dégg ko ndax mu mën koo jariñoo ak ajoom ci tariqa bi itam mën a wér fa tabarakallahu yàllañ ci yàlla boole charte bi ci njëkk moo di taalube bi bu demee ba bëgg a jël wirdi wi na seet sëriñ wala boog kilifa goo xam ne bu ragal yàlla la mu dem ci moom ngir mu jox ko ko na ragal yàlla itam na nekk muqaddam boo xam ne am na ndigal lu mat sëkk ci joxe tariqa bi ndigal loo xam ne soo ko dàqoon wala nga topp ko dana dem ba àgg ci yonent bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashaabihi ajmain kon loolu liñ ci mën a jële mooy koo xam ne da nga jël tariqa bi ci ku bokkul ci tariqa bi amuloo dara soo ko jëlee ci koo xam ne bokk na ci tariqa bi waaye amul ndigal lu wér ngir mën koo joxe itam jàppaloo ci dara faqidu shay la yuti kon kilifa gi la koy jox na bokk ci tariqa bi ba noppi itam na am ndigal lu wér loo xam ne soo ko toppoon da nga dem ba mën a àgg ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kooku mooy charte bu njëkk bi charte bu ñaareel bi moo di almuxaafadatu ala alsalawat alxams fi awqaatiha wa fi ljamaati in amkan dina cheikh nee na sama tariqa bii ku ko bëgg a jël na ngay toppatoo sa julli juróom di ko jooxe ci waxtoom di ko defee itam ca mbooloo ma ndem jàppandi na bi maanaa ndegam benn ngant amul moo tax sidina cheikh radiallahu anhu wax na ci benn leetaram boo xam ne ku dem ci jawahirul maani daa ko fa fekk mu wax ne wa chartuhu ay alwirdu almuxaafadatu ala alsalawat alxamsi fi aljamaat wal umur alsharciya loolu fa tabaraka allahu charte la bu am solo boo xam ne dafay wane ne tariqa bii léppam sunna la léppam ci sharia la ko borom tëral yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana wax ne ahabbu l amali ila allahi alsalaatu li waqtiha daana wax ne jëf yépp bi ci gën a sopp fa yàlla mooy joxe julli ca waxtoom bañ ko sàggane ba mu génn yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana wax ne salaatul jamaati tafdulu salaatal fardi bi sab'in wa ishriina daraja jullik mbooloo moo gën jullik kenn nit ëppe na ko ñaar fukki daraja ak juróom-ñaar loolu kon defe naa ne fa tabaarakallahu doy na sëkk rawatina buñ ci boolee li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne man tawaddaa lilsalaati fa asbaga alwudu'a thumma masha ila alsalati almaktubati fa sallaha maca annaasi aw maca aljamaca aw fi lmasjidi gafara allahu lahu dunuba loolu lu mat a bàyyi xel la yonent bi nee na koo xam ne kii da nga jàpp ngir julli matal sa njàpp jàpp na nga war a jàppe ba noppi dox ngir jëm ci jullik farata goo xam ne yàlla daf koo bind ci sa kaw nga julli ko ànd ak nit ñi wala boog nga julli ko ak mbooloo mi wala boog nga jullee ko ca jàkka ja soo ko defee yàlla dina la jéggal say bàkkaar waaye nag bëgg nañ ci imaam bi lay jiite na nekk min ahli sunna bu mu nekk imaam boo xam ne bii dafa nekk min ahlil bidaati wala mu nekk min ahlil fisq imaam booba itam bu mu nekk imaam bu bañ sidina cheikh radiallahu anhu ndax su ko bañee rek dalay wóor ne imaam la boo xam ne gëmul nitu yàlla yi te kon dootul bokk ci ñi nga xam ne bii war nañoo jiite ku leen gëm chartu ñetteel bi moo di boo ko dee jël danañ la ko leeralal yow nit ki boo dee julli sa julli farata bu ci nekk na nga ko tàmbulee ak bismillahi rahmaani rahim ndax noonu la ko sidina cheikh santaane bu dee ci jullik farata wala julli goo war a biral lu mel ne timis ak lu mel ne gee ak lu mel ne suba na nga biral bismillahi rahmaani rahim te bañ koo yalu loolu la sidina cheikh santaane charte bi ci tegu moo di ne boo dee julli sa rukoo ak sa sujjóot nang ca am ak dal akuk temm lu mu gàtt gàtt gàtt nang ca mën a wax subhaana rabbiyal azimi wa bihamdihi wala nga mën caa wax subhaana rabbiyal a'la gën jaaneew ñetti yoon yoo xam ne doo ko gaawtoo loolu itam ci charte yi nga xam ne sidina cheikh radiallahu anhu tëral na ko pour taalibe bu bëgg a dugg ci tariqa bi war a jéem a sàmmonteeg moom charte juróomeel bi moom la ñuy wax at tahajjud walaw bi rakaatayn moo di julli guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sun borom moo ko ko sant wa min alleyli fa tahajjad bihi naafila asa an yabaasaka rabbuka maqaaman mahmuuda ngay jóg guddi di julli donte sax ñaari rakk la nga di ca jàng itam kemtalaayal li la jàppandi ci alquran sidina cheikh radiallahu anhu ku ko bàyyi woon xel la daana ko santaane demoon naa dem ba nga xam ne tuuti rek moo tax mu def ko ponk bu ne bu bokk ci ponk tariqa bi moo tax ba waaje ko ñëwoon di ko wax naan ko man daal dama bëgg nga may ma ruxsa ndax man daal mënumaa yeewu fajar lu jiitu fajar ngir di def ñaari rakk yooyu nga santaane damay nekki nelaw sidina cheikh ne ko anta rajulun laa tasluxu li tariqatina fatrux subhatana ank yow daal nit nga koo xam ne yooyoo woo yéwénoo pour sun tariqa bi kon boog wàccal sunu kurus delloo ma sama kurus yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo delloo ci ahadis yi mu wax daa ci fekk ahadis yu bari yoo xam ne dafay soññ taalube bi dafay soññ nit ki pour muy julli guddi daana wax ne afdalu salaati ba'da al maktuba qiyaamul layl daana wax ne rakaataani yarkacuhuma ibnu aadama fi jawfi lleyli al axiir xayrun lahu min addunya wa ma fiha walaw la an ashuqa ala ummati la faradtuha alayhim yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana wax ne julli yépp ginnaaw jullik farata bi ci gën mooy taxaw guddi daana wax ne itam ñaari rakk yoo xam ne doomu aadama dana ko julli ci biir guddi gi moo gën addunaak li ci biiram su ma bañul woon a sonal sama xeet wi kon danaa ko farataal ci seen kaw yeneen bokk na ci charte yi itam mulaasamatu rawaatibil faraid moo di ne bala ngay julli farata nga def nawaafil yooyu nga xam ne dañ ko santaane dañ ko santaane ndaxte sunna soosu nga xam ne sunna raatiba la nga di ko def lu jiitu ngay joxe sa farata dana dindi jeexitu càggante gu amoon ci sa biir lu jiitu ngay dem ci farata gi jaxasoo bi nga jaxasoo woon ak nit ñi ba tax nga fàtte lu bare bari soo jiitalee nawaafil yooyu dana la préparer waajal la balaa ngay dem ci li nga xam ne mooy farata kooku mooy sunna mooy mooy naafila bi ngay njëkk a def balaa ngay dugg ci julli gi moo lay préparer ba nga xam ne boo dikkee ci farata gi dana fekk yow defoon nga nawaafil yoo xam ne dana la fàttali sa borom ba nga xam ne boo duggee ci farata ji sa xol dootul nekk ci kenn sa xel dootul jëm ci kenn ku dul yàlla boo jullee farata ba noppi itam def ko manqué manqué yi nga xam ne dafa amoon ci sa biir farata dana la ko jangal loolu moo tax ñu tëral ne balaa nit ki julli farata na def ay nawaafilam ba noppi charte bi ci tegu moo di taalube bi na nekk saadiqan fi aqwaalihi gayra kaadibin fi cheyin minha na nekk koo xam ne ku dëggu lay nekk ci ay waxam di moytandiku fen kemtalaayal kàttanam si dina cheikh radiallahu anhu ku daan soññ ci wax dëgg la ku daan soññ ci dëgg la moo xam ci wax la moo xam ci jëf la daana moytandiku lool lool ay taalubeem fen mu ne wa sidqu yuurisu li saaxibihi addiina wal aqla wal muruata walsharafa walkamaal suñ boroom nee na yaa ayuha alladina aamanu ttaqu llaha wa kunu maa saadiqin yéen yi nga xam ne gëm ngeen yàlla na ngeen ragal yàlla te ngeen ànd ak ñi dëggu suñ boroom waxaat ne innama yaftari lkadiba alladina laa yuminuuna bi ayati illah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne alaykum bisidqi fa innahu min albir walbirru yahdi ila aljanna wa iyaakum walkadiba fa innahu min alfujur walfujuru yahdi ila annaar yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na maa ngi leen di dénk dëgg na leen woon na dëgg ci mbaax la bokk te mbaax nag dafay jàpp ci loxol nit ki di ko wommat ba mu dugg aljanna na ngeen moytandiku fen fen ci ak kàccoor la bokk te ak kàccoor dafay jàpp ci loxol jaam bi di ko wommat ba dugal ko naari jahannam yàlla nañ ci yàlla musal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana wax ne da ma yuribuk ila ma la yuribuk fa inna alkadiba ribatun wa sidqa tumanina loolu moo aju ci dëgg te ndëg dëggu nag as sidqu moo di awalu qadamin yadacuhu almuridu ala tariqi saadati suufiya dëggu daal mooy dëggu bi njëkk tànk bi njëkk jéego bi njëkk nga xam ne taalibe bi moom lay jéggi pour mën a sóobu yoonu nitu yàlla yi sidqu moo ci njëkk imaamul Qushayri radiallahu anhu daana wax ne alsidqu imaadul amr wa bihi tamaamuhu wa bihi nidaamuhu wa huwa taali darajati nubuwa qaala allahu taala fa ulaa'ika maca alladina ancama allahu calayhim min annabiyiina walsiddiqiina walshuhadaai walsaalihin yal nañ ci yàlla boole moo tax ba benn waaye dafa mas a ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko man daal bëggoon naa la gëm waaye nag man damay dama sopp sàngara lool te itam damay njaaloo te damay sàcc te nit ñi nee nañ ma yow sa diine bëggul yi da nga koy tere te man mënuma koo bàyyi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko nag ma bëggoon su fekkente ne bii daal mën nga maa may loolu kon danaa bokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko may naa la ngay naan sàngara may naa la ngay jëfandikoo njaaloo may naa la ngay jëfandikoo fen waaye na nga ngay jëfandikoo sàcc waaye na nga bàyyi fen mu nangu dal di tuub ba mu génnee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu jox ko sàngara mu ne su ma naanee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laaj ma ko ma fen ko ne ko naanuma fecc naa ko lëre te su ma nee ko naan naa la ca war danañ ko def ci sama kaw mu dem ba ci yàgg ñu ne ko njaaloo ngi nii jigéen a ngi nii yomb na la pour nga tëdd ak moom mu daal ne waaw su ma ko defee yonent bi laaj ma su ma fenee fecc naa kóllëre te su ma ko waxee ne ko njaaloo naa itam la ca yoon santaane danañ ko def ci sama kaw nekki noonu itam ba sàcc teewee mu dellu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko maa ahsana ma faalta lamma manaatani an il kadib fa tabarakallahu yow ku am diplomatie nga ku am méthode nga itam ci jàngale ba nga ma teree fen ci laa bàyyee yii yépp nga xam ne waxoon naa la ne mënuma koo bàyyi kooku mooy charte juróom-ñaareel bi charte bi ci tegu moo di taalube bi na xormal ñaari way juram na leen bëgg sopp leen noonu la ko alquran santaane wa qada rabbuka an laa tacbuduu illa iyaah wa bilwalidayni ixsaanan imma yabluganna cindaka alkibara axaduhuma aw kilaahuma falaa taqul lahuma uffin wala tarha wala wala wala tanharhuma noonu la ko alquran santaane nga gis ne suñu borom tabaraka wa taala ginnaaw bi mu ñu santee ne nañ ko jaamu bu ñu jaamu kenn ku dul moom buñ ko bokkaaleeg dara lam ca teg moo di def njëkk jëme ko ci sun ñaari way jur nit ki war fu mu toll war nay toppatoo ñaari way juram xormaal leen bëgg leen buy wax ak ñoom kàddoom na suufe na am ci ñoom teggin bu mat sëkk te nag lu ko yàlla wërsëgal ci man-manu àdduna ba mu defal ko ñaari way juram bu mu ci gis boppam mukk ba yaakaar ne matal na xaq ji dox digganteem ak ñoom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ridallahi fi ridal walidayni wa saxatuhu fi saxatihima ngërëmal yàlla kat mi ngi aju ci ngërëmal ñaari way jur meru yàlla itam mi ngi aju ci seen mer ñoom ñaar charte bi ci tegu moo di an yudaawima ala kamaali mahabbata alcheikh bila inqitaain ila almamat fu mu toll na am cofeel gu mat sëkk gu koy takke digganteem ak sëriñam ba keroog muy génn àdduna ndax cofeel moo di buum gi nga xam ne mooy takke diggante sëriñ bi ak taalube bi sa cofeel ci sëriñ bi nu mu toll rek sa madat noonu lay toll te loolu moo di nga am teggin ci sa sëriñ am yar ci moom màggal ko jox ko cëram bi ko yàlla jox ittewoo ay mbiram di ko toppatoo bu baax a baax charte bi ci tegu moo di an yaxtarima kulla man kaana muntasiban li cheikh radiallahu anhu képp koo xam ne am na askan wu ko takkeeg sidina cheikh radiallahu anhu wala boog sëriñ bi la jox nga xormaal ko rawate na nag ñi nga xam ne yàlla daf leen a jox cër ci tariqa bii nga xormaal leen bu baax a baax jox leen seen cër fa tabaarakallahu yàlla nañ ci yàlla boole charte bi ci tegu moo di an laa yuudiya axaahu fi tariq ki nga xam ne kii yàlla boole na leen ngeen bokk naasiral xaq bil xaq doonte bokk leen muqaddam bu leen ko jox moom na ko jële ca Espagne yow nga jële ko fii bi ma ànd na yéen a bokk rek ne yéen a bokk di tudd naasiral xaq bil xaq kooku warloo ko lor yonent bi sallallahu alayhi sidna cheikh radiallahu anhu daana wax ne sama maam nee na ma qul li asxaabika laa yuuduni bi idaayati baadihim baada waxal sa àndandoo yi buñ ma lor ndax bu ñu lorantee ci seen biir rek loolu dafay rogalaat ba agsi ci man kon buñ ko def ci seen biir mu daan jàng ne inna alladina yuuduuna allaha wa rasulahu laanahum allahu fi dunya wal axirati wa adda lahum adaban muhina charte bi ci tegu moo di taalube bi na màggal mboolem nitu yàlla yi li annahum ahbaabullah ñoom ñooy soppe yàlla yi bu leen màggalee xormaal leen rek yàlla dana ko sopp tànn ko jegeñal ko boppam bu leen doyadalee nag yàlla dana ko doyadal ba noppi mere ko yàllañ ci yàlla musal sidina cheikh radiallahu anhu daana wax naan na ngeen xormaal nitu yàlla yi ñi nekk ci kaw suuf di dund ak ñi nekk ci biir suufu yu seen borom ndax ku leen màggal màggal seen xorma yàlla dana màggal sa xorma ku leen bëgg a toroxal wala nga bëgg leen a doyadal yàlla dana la doyadal ba noppi dana la mere fala tastahinu bi xormati l awliya noonu la ko sidina cheikh wan santaane charte bi ci tegu moo di an yatawaddada ila xalqillah wala yuqaaticuhum la siyama ixwaanahu fi tariqa foo toll na ngay jéem a def lu baax jéem a bëgganteeg mbindaa foonu yàlla yi ba ci ñi nga bokkalul tariq na nga fexe ba jàmm dox sa digganteeg ñoom ndax buumu diine gi leen takke fa tabaarakallahu moo jiitu buumu tariq na ngay jëflante